téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex. asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq te di leen baal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen wax ne nag xam nu ñuy defam dañuy dem seetaani li journal yi indi tey ñu doog a ñëwaat ak yéen si plateau bi ak waxtaanu làmb ji ci li JDA bi xulle noonu la demee ñu dem. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 17 juin 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw maanaam ci violence yi violence yi nga xam ne day am ci face à face yi jàkkaarloo yi xëta mu njëkk nag moo tax ñu fàtt leenu benn fasa à boo xam ne amoon na fi neexoon lool fa mu amee woon moo doon stade Demba Diop doxoon ci diggante Balla Gaye le lion de Guédiawaye ak Mohamed Ndao Tyson l'homme de génération bul faale yëglikaay ba ñëw fàtt leenu loola ci aw foto waaye am na ñoo xam ne dékk na leen micro ñu wax ci violence booba ay acteurs yi làmb bokk na ca promoteur bu mag bi nekk si làmb muy Gaston mbeng Gaston daal la moo xam le nee na loolu muy gis ñu di ko def mooy ay violence ci ay face à face jàpp na ne ah buñ ca continuer daal avenir làmb maanaam fa muy tege du baax la ca kanam du neex de kon nee na nañ ko jéem a bàyyi ndax jàpp na ne violence moom du lu gën lu ci mën a doon Gaston Mbengue loolu la xëy wax que jiite amateurs yi di du jànjeek ko tamit wax na ca nee na maanaam supporters yi ñoom ci seen wàllu bopp ñoo amul place ci ay face à buñ koy defati nañ leen ko interdit tere leen fa ñu bañ faa dugg ba di fa jegeñ loolu mooy gis-gisu du jànjek ko Cheikh Niang président écrit Lamsar tamit wax na ca nee na maanaam boo bëggee dégg dëgg li mu mënta nangu moom Cheikh Niang wala xel di ko nangu mbala nit di ko xalaat mooy di organiser face fas te yow wàllum sécurité maanaam muy police wala gendarmerie nekkuñu fa encadré ko Cheikh Niang nee lii moom nit waru koo saax toog di ko xalaat bu di ko gént maanaam président ki lamsaar ba moo xëy tey waxe noonu jili wadd di manager ba nga xam ne ni moom moo yore guy gi tamit jàpp na ne maanaam li ñu war a def ñoom promoteurs yi fi mu nekk nii ku ciy defati face à face comme xarala yi léegi maye na ko wala mata na ko nga def ko lu mel ni saanu duplex ku nekk nekk sa kër di waxanteeg sa morom ne na bu keroogee jàmm ne ñooy kenn du xori kenn kenn du xoos kenn loolu mooy waxi jili wadd bu nu continuer moom jili wadd mbërëm ma nga xam ne moom moo di guy gi comme war a bëreel nag muy rëg-rëg moom yëgli kaayu xamal nañu ne daal depuis le vingt cinq mais rëg-rëg mu nga ci réewum États-Unis di préparer boppam maanaam daal fi mu nekk nii moom nee na pare na ngir daan guy gi de moom rëg-rëg daal loolu la xëy tey di wax mel ni ki nag ka nga xam ne nii moom la bokkal ab écrit muy Ahmed dem moom itam xëy na ci yëglikaay bi di sunu lamb dafa wax ci boobu combat nee na kii di rëg-rëg daal amut mbër boo xam ne nii mënu koo daan rawatina guy gi nee na rëg-rëg capable na pour daan ku dul sax guy gi amet dem noonu la gise ne nañ ko ñu ne ko amet sa digganteeg rëg-rëg mel ne dafa amoon ay jafe-jafe amet ne na jafe-jafe musu cee am wala bu amet na tamit nekkuloon loo xam ne lu garaaw da ne na nit ñi kay ñoom ñooy ñoo xam ne nii daal ñooy bëgg di jaxase ay nit waaye jàpp ne rëg-rëg sama rak la te sama poulain la ñoo bokk tamit écrit bi nga xam ne ni moom mooy caaroy Cap Vert na ne daal loo ci mën a dégg maan ay nit yoo xam ne maanaam seeni xalaat du baax wala seen ay intention ñoo ñu bëgg a jaxase waaye nee na rëg-rëg moom sama rak la tey suba waxi noppi amet dem moo xëy tey di waxe noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom bundu nanguwu ñoo doon ay rak wala ay mag lu dul le 19 daa passé muy fara ak rëg-rëg yëglikaay bi xëy na tey wan ñu leen nee na soog bii daal maanaam soog de l'Afrique la ko tudde ndax boo bëggee dégg ñaari mbër yi ay mbëri lañ yoo xam ne bu la neexee nga sax ay international lañu moo tax yëglikaay bi jàpp na moom sunu làmb nee na daal la maanaam de maanaam soxla boo xam ne ay champion d'Afrique ñoo ko war a seq ci samedi jiinu jëm ci arène nationale yëglikaay bi mu xëy tey wax na ko ña sequn démb ci arène national bis ba am ku ca daan muy diggante iba mécanicien ak takkandeer iba mécanicien nag moom daal moo dépanne ka nga xam ne nii moom moo di takkandeer dal di ko daan yëglikaay ba xëy na tey dikkal ci lu mel ni ki noonu moom sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ñëw na tamit ca la nga xam ne nii moom moo di maanaam ñoom général Malick ak la nga xam ne ni moom mooy li simple ba ak galaa yi nga xam ne dana jax ci weekend bi nga xam ne moom la ñu jëm moo tax yëglekaay ba xëy nu tey wan ñu leen yemu ca moom sunu làmb xëy na wan ñu bis de maire mi ngeen xam mu mag mi ak Siteu bu Kaolack la 11 juillet la ñu war a jë la ñu war a def am face à face fa nga xam ne ni moom moo di ca Kaffrine yëglikaay ba moo xëy tey wax nu ko seen premier jàkkaarloo nag samedi jii nu jëm daal lay am fa nga xam ne ni moom moo di ca Kaffrine combat ba nag ku ko tëgg du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di si di Jaxate mu bu buñ fa jógee les arènes la ñuy dem booy naar nag ma nga xam ne moo nekkoon Fass te tey mu nekk ca France di fa dund moom la ñu xëy tey séqal waxtaan ñoom yëglikaay bi ka ko def nag moom moo di Rokhaya Thiam booy ñang booy booy naar nag xëy na tey di indi ay leeral ci digganteeb ak Balla Gaye jàpp na ne sax diggante Balla Gaye ak moom maanaam way juru Balla jigéen daal moom moo choisiroon booy naar ngir nag mu mën koo jàppale ngir mu daan Yékini yëglikaay ba moo xëy tey dikkal ñu ci waxtaan wu yaatoo yaatu ak booy naar mi nga xam ne ni mu nga ca France leneen loo xam ne ni yëglikaay ba ñëw na ci mooy combat samedi bi Tyson deux francs yëglikaay bi di les arènes moom la mu gis ba jàpp ko nee bu favori amee moom du kenn nag kudul ka nga xam ne ni moom moo di Tyson 2 ak 18 combat yoo xam ne daal yëglikaay ba gis na ko ci moom yoo xam ne def na ko moo tax yëglekaay ba jàpp na daal soo bëggee dégg-dëgg daal moom Tyson 2 daal ah lu am ba daal moom mooy la nga xam ne nii moom mooy favori wu boobu bés les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu les arènes tamit yemu ca de ñëw na daral ka nga xam ne ni moom moo di Evelyne Diatta di coach su équipe nationale moom daal mu nga xëy daal ne na caaka fay daal wax jooju ñuy wax ne na mu ngay xaar mu adressé ko directement wax jooju ndax caaka day jàpp na daal taxawaay ga nga xam ne nii daal moo am ci équipe ba daal xëy na moom moom lay ñaawlo moo tax daal moom boo bëggee dégg-dëgg Evelyne daal nee na moom lay déglu mu wax ak moom ndax nag nee joxoñ balaa baax day dugg ci bëtub borom Isabelle Samb di ab mbër nekkoon fii di bëree wala boog mu nekk ca ba tey Isabelle daal nee na boo bëggee dégg-dëgg fii ci Sénégal moom waalam boo bëggee dégg-dëgg daal maanaam ña nga xam ne ni ñoom ñooy sportif individuel yaay ñay def sport ñoom kese maanaam cër ba ñu leen war a jox Isabelle jàpp na ne joxuñu leen ko loolu mooy ay waxam keneen koo xam ne ni moom xëy na di wax moom nag lambi gàmbi moo ko jiite maanaam boo bëggee dégg dëgg mooy kilifa ga ñu naan ko Serigne Modou fay moom mooy président fédération gambienne de la mu xëy di wax la daal nee na daal kase bi gën a mag fii ci Gambie daal dépassé wul quinze millions loolu la xëy wax moom Serigne Modou fay yemu ca bàyyi ma ñoon tamit ñëw na ci moom nee na bu fekkente ne lam fi defoon diggante ma xoyantaan daal maanaam réccu na ko jéggulu nee na su keroogee mën xool nu ñuy def ba jéggal ko moom tamit di ko wax yemu ca nee na tamit ci gàmbi daal boo bëggee dégg dëgg xoyantaan dayo ba nga xam ne ni moom la Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène am senegal nee na xoyantaan dayo boobu la am gàmbi maanaam mooy seen roi des scènes te moo yore couronne ba fa nga xam ne ni moom moo di ca gàm bi yemu ca moom kilifa ga xëy na xam ne daal ba tey ne daal ba tey ci les arènes ne na am na soit daal ci mbër moo xam ne mu ngi Sénégal moo xam ne moom mooy mbër préféré ne na nag mbër ma du tudd aw turam waaye daal loo ci mën a dégg nana nekkoon na roi des arènes te itam boo bëggee dégg-dëgg jamono jii nuy wax am na komba waaye li nga xam ne ne daal moo jar a wax mooy li war a am rek samedi Equivox TV wala Vox Arena ak le 19 ñu ñaan yàlla mi mën a yeggale yal na ko yàlla yeggale ndax nag lu waay sumb mu yegg du sa doole du sa kàttan mais yàlla la kon daal mbir mi fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dégg yal na ko yàlla mot leeg jàmm waaye dina am koo xam ne moom faw ma tudd ko muy Aziz Aly Ndiaye du mën a ñàkk ndax nag ab taxawaayam rafet na lool ci waa Vox Arena ak Equivox nam leen di assister boobu ba tey ngir bésu samedi 19 bi yegg ci jàmm kon Aziz maanaan la mention spéciale maanaam nit ku ne na nga toll ngay jëfe soo bëggee dégg dëgg ak sa zador moo tax loo dugal sa loxo rawatina zador jaag la ca des day gën a avancé ndax nag kulle ku la safoote nga faale ko ku la yëg nga yëg ko waaye ku la yëgul tamit nag am nga droit maandu ci moom waaye bu ko wax lenn loo xam ne lii lu ñaaw lay doon macha allah kon dégg ngeen ko tey looloo ñëw ci journaux yi waaye fu ma tëjee nag ci la ñëw ci journaux yi moom lay ubbee waxtaan wi parce que maanaam olof nee na tàggee boo gis am na jàppal diw te itam ku la safooti xulle da nga koy faale loolu ci fula la bokk tey Vox Arena bu ñëwee si làmb amee Equivox Equivox ku ne yàgg na ko gis muy exister ci wàllum làmb wala sax ci ay information du sax làmb kese mais xëy na dañ leen gën a gis ci làmb Cheikh Omar nekkoon fii di fi liggéey liggéey bu mucc ayib macha allah ñépp xam leen ci image yu baax qualité ak lu mu mën a doon ci wàllum image ak son lépp yàlla dogal Cheikh Omar moomu yàlla dogal ma voyagé dem Paris la France ci soxnaam seeti soxnaam kër ñu choisir ko mu ñëw fi comme kuy def làmb yaa ngi dégg yemuñu ca ñu yemuñu ca loolu ñu ubbiwaat beneen label bu ñuy wax Vox Arena jël ay millions yu bëri taxawal ko di organiser ay événement bañ ne fu ñuy njëkke ñu ne mbay ci sa wewu tànk ndax nit ku ne la nga moom muy làmb ñu njëkk ci làmb jël ay millions yu bari fay ko ay mbër tëgg loo xam ne nii mbër yi ñu tëgg mbëri mu ci ne mbëru grand combat nga parce que li tax mooy fourrière bi muy mujj a bëri Assane Ndiaye bool production moo ko tëggoon boole ko bébé Diène grand combat lañ bëri defe naa ñu fa nekkoon ñëpp seen xol yee seet ndax bu métti bu tar caatu ngewel bi muy mujj a bëri grand combat la bëri digganteem ak fils de Zallo combat bu métti te tar caatu ngewel daan ko Maama kenn du naat tableen bëru grand combat loolu du ko ndax tey defe naa ne bokk na ci xale yi nga xam ne ñu ngi xalaat ëllëg ñu dem ci VIP ndax façon ba muy bëree la Garga 2 tamit ñépp dañ na sax fii mu ne tey ci làmb du place am parce que waroon na romb fii mais olof na na bu yéen joxul wax su lu jeex ku ne xam ne ne kooku tamit du mbër mu ñuy présenté Tyson 2 ndax dañ koy présenté kenn déedéet ci ñi nga xam ne ni ëllëg dañ jàpp ne flambeau Pikine ñoo ko war a yenu ci la bokk mook Boy ñaa ak Ama loolu la yàlla dogal moom Tyson 2 kon duñ ko présenté Franc amagul defet ci li avec Frapp bébé bébé Saloum la mujjee daan jamay kee ko tëggoon ci arène nationale kon defe naa Equivox su ñëwee regroupé mbër yooyu def leen ci benn journée ah wala Vox Arena defe naa ne kon ku ñëw di jël di leen si jàppale mënu ñëw la wax leen lu dul jaaraama ku mel ni Assise ñu ngi ko naan jërëjëf ku mel ni Mor bu parcelle mbooloo waaye mention spéciale à Abdou Aziz Ale Ndiaye dama koy wax di ko waxaat dama lu ma fen ndax man du ma sete kenn ay fleur waaye gis nañ taxawaayam te bu ko neexoon du demee noonu kon jërëjëf Aziz yal na la yàlla yokk yopp bi yekk bopp doomu aadama li ngay liggéey tamit muy sa entreprise yi yal na ko yàlla yokk ba mu raw entreprise yu mag yi ñu dégg ci àddina bi loolu lañ la ñaanal parce que nag macha allah sa taxawaay rafet na trop loolu man maa koy wax tey 2STV tamit jërë ngeen jëf Modou mbay jaaraama di la nuyu du ñu sa papa gis nañ plateau bi bu la neexoon ngeen bañ ko def mais yéen 2STV ku ne xam na ne 2STV lamb bokk na ci lu ko lancé ak kalaafu Gaston Mbengue 2006 ba loolu fi la ñu fekkoon kon yéen itam bàyyiwu ngeen laneen laasu ba tey yéen a ngi jox làmb gëddaam moo tax ngeen def loolu plateau bi ngeen def dem Alaaji Papa Dieng toog ma Macoumba Diouf toog Aline Badara Diouf DG Vox naa toog macha allah muy plateau bu rafet kon waa des tamit jaaraama jërë ngeen jëf ndax maa ko wax te dama koy waxaat ku la safooti faale ko mbir yi noonu la demee waxuñu nag pour pour ay kon non parce que man du ma waxee noonu mais nag dafa fa fekk ne mbir bu ñëwee ki ki la ciy jàppale am nga droit gërëm ko nag jërëjëfal ko ndax Abdoul Cheikh Abdoulaat Mbacke doon na wax ne géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax ko te 2STV dañ koo def keneen def ko keneen def ko waa CNC CNC waa CNC bi yore lamb ji tamit jërë ngeen jëf promoteur yi tamit jërë ngeen jëf rawatina ko mel ni Fallou Ndiaye ñoo ñëpp waaye jax tamit mention spéciale ndax dat dat bu bu ñu amee arène nationale le 19 ba yóbbu lamb ji foofu moom moo ko joxe. bu ko neexoon mu ne duma joxe arène nationale moom moo ko joxe nangoo dem Iba Mar Diop tëggi fa Baaba Maal ak Boy Sine jax tamit vraiment jër spéciale jëf waaye encore une fois rek lamb tey li koy li koy vulgariser ba ñëpp di ko gis ci àddina bi fu nekk defe naa internet bi ñoo ciy numéro un loolu moom kenn mënu ko bañ defe naa ne làmb boo ko bëggee xool tey bëgg ci am lu leer nañ nañ nañ di nga dem ci internet bi parce que foofu la monde bi toll léegi déedéet télé yi nag tele wut ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar télé classique yëpp di leen jaaraama di nuyu suñu kilifa yi fa nekk def ay émission kum ci mën a doon parce que ña fa nekk ñëpp suñu ay mag lañ ndax boo demee TFM suma grand Lamine Samba nga fay fekk suma papa Thierno Ndiaye suma grand Malal Junior Diagne ak Malick Thiandoum ñun suñuy kilifa lañu 2STV waxaale wu ma ko ndax Père defe naa ñun ñëpp ku ne am na tey njukkal boo ko war a delloo ndax ñu ñeme moo tax ñu bare ñeme moom suñu papa la yaa ngi dégg nga dem ITV tamit suñu papa Alaaji nga Diagne defe naa ca RFM ba tey i rajo ak ITV moom it jaaraama parce que ñu ñëpp ku ci ne yaa ngi liggéey sa liggéey macha allah bay sa waar si di làmb bu mu toll fii waaye nag ah comme la ma waxoon rek 2STV daal jaaraama ñoom waaye site internet tamit kenn du ñoom gis nañ leen bu baax a baax ci liggéey bi su ma limee dinaa juum waaye gis naa leen bu baax gis nañ leen daal macha allah gis nañ leen loolu ma dama dama ne woon day nekk loo xam dama koy ubbee euh, di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm bon di wax ne que tey sunu làmb xëtam mu njëkk xulle fa mu ca xëy njëkkee mooy débordement yi nga xam ne day am ci ay face à face ay violence ak jàppal bàyyil xaañant moo tax nag am acteurs yi làmb yi xëy na waxti Gaston Mbengue wax na ci Doudou Diagne Diecko président Cheikh Ñaa bu Lamsar ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, ki sant Wade tey nekk école de lutte Mor Fadam di mënaat seeru guy gi muy jili Wade ñoom ñëpp boo xoolee seen kaddu kàddu gi benn la parce que Gaston Mbengue li mu gis mooy nee na li mu gis ñu di ko ci des avenir bi muy amee du nekk avenir bu baax ci làmb effectivement wax na dëgg ndax violence bu fekkente dañ koy dugal ci benn sport bu yàggee mën na indil sport ba ay jafe-jafe kon loolu nañ ko jéem a bàyyi loolu Gaston wax lu am solo du jànjeek ko nee na supporters yi amuñu fa place ci face a face yi waaw parce que bu fekkente ne boo fa ñëwee fa indi violence kay yow amoo fa place loolu dudu wax tamit dëgg la bien sûr amoo fa place waaw Cheikh Niang nee na mënut a xel mënut xalaat ngay def ab jàkkaarloo ah te gendarmerie wala police encadré wu ko effectivement wax na dëgg lu mel ni face a face làmb na mu amee enjeu nga di ko def gendarmerie teewul police teewul loo fa xew yow ko yow promoteur ba yow la bul ko jiiñ kenn loolu moom na leer nañ loolu mooy li nga xam ne ni ñëw na jili wadd tamit nee na duplex à distance kii nekk way kenn nekk parcelle ñu jàkkaarloo effectivement loolu def na gis nañ 2STV def ko fi ci Gris Bordeaux Modou Lo def nañ ko fi Gris Bordeaux nekk biir Médina Modou Lo nekk biir parcelle ñu jàkkaarloo duplex waaw yooyu day am mais pourquoi mënu ñoo sérieux sax balaa loolu ñu indi mënuñu face à face te problème du am loolu war na mën a ne <laughs> voilà loolu moo gën pour man rëg-rëg pare pare na pour ba pour gagner guy gi depuis le 25 mai mu ngi États-Unis waaw rëg-rëg moom xam naa ne ah bon euh, pare gi moom du lees dina am laamee ndax boobu ba tey mu ngi ci MMA bi di ko ñàkkante di ci am ay ndam kon defe naa tey bu delloo États-Unis ngir gën a préparer wu ngir waajal guy ne ngi ñëw ñu si nuyu ku mel ni moo nekk ci bopp structure boobu yore làmb ah defe naa kon rëg-rëg itam ah loolu am na solo amet dem magam nee na ñoom ñaar amuñu problème nee na loolu moom ay nit ñu ñu wàll intention ni ñooy dugg seen diggante yaa ngi dégg waaye nee na amut ak rëg-rëg problème bu nit mën a wax waaye li ma leen siy doole rek amet yàgg rëg-rëg ak keneen ku mu mën a doon ba ci man mi nit bu ngeen nekkee da ngeen di ànd te yàlla tax nit su ngeen nekkee da ngeen di waxante dëgg loolu day defar ànd te yenente jàmm te bañ di déglu am na ñoo xam ne ni Babacar la ñu mel chaque jour ñu ñëw ne la la xulle wax wala nangam wala nangam yooyu day yàq ànd kon loolu gën leen ci veillé bu baax a baax a baax comme li am rek ku ne xam ne ne Ahmed Deme Caaroy Cap Vert buñ ko tuddee moom la xel yi di dem parce que wax dëgg yàlla bi mu sosoo moom lañ gis mu départ ànd ak ay ay mbër ñoom B52 euh, non di di moins sax maanaam B52 clé fàtte naa turu mbër ba turu bëri ci nam ndax nekku fi loolu la après wane boppam ba tey moom tamit vraiment marqué empreinte am mais gën li na ànd rek te yàlla tax loolu mooy doole ah mooy doole ndax yàllaa ko bëggal boppam ba sant nañu ko ci téere bi kon loolu leer na Tyson 2 Franc ah choc des champions d'Afrique effectivement sa samedi waaw parce nag ñoom ñaar xam naa li tax yëglikaay bi ñëw ci lool mooy ay champion d'Afrique la ñu kon defe naa soog boobu la neexee nga ne soog yéen soog d'Afrique kon dama naan mention spéciale comme nu ko waxoon a ñàkk dem ci àllarba ji nga xam ne ni moom mooy takkandeer daan na ko de Iba mécanicien les mercredis du CNG kon waa CNG tamit ñu ngi leen di jaay jërëjëfal parce que tamit loolu innovation la ñëwaat ngeen bi nga équipe bu beesu Biraseen bi ñu ngi ñëw di tëgg ay làmb loolu di lu ama foofu ci CNG bi yor yor yor lépp luy xam ne moom mooy dox ci wàllum làmbi dóor waaye tamit ki nga xam ne nii moom mooy Sidi Diakhaté ah le 11 juillet ca Kaffrine la tëgg drapeau ki nga xam ne ni moom mooy Abdoulaye Sow mi ngeen xam mi mokk ko APR waaye nekk ki kilifa tamit fii ci réew mi te ñu xam ko ci wàllum football bi du kële nag moom mooy Sidi Diakhaté moo ko yóbbul drapeau andil ko brise de mer numéro un bu e-, nekk fii nga xam ne moom mooy ci Grand Médine nekk Dóor waar boole ko Siteu bu Kaolack muy combat boo xam ne bu nar a neex la ñoom ab jàkkaarloo samedi ji nu jëm ca Kaffrine face à lañu fay def ñaari mbër yi loolu moom am na lit lit simple bi tamit dina yëngutu waaw dina yëngutu bu baax a baax a baax ndax li tax mu nar a yëngutu mooy ah Fatick le 26 juin mise bu mag am na fa 3 millions fa nga xam ne ni moom mooy ca boof samedi am na benn miisu 375 000 francs boof ab dëkk la ñaning tamit samedi am na 1 million 500 bu ñu fa teg. ah ñaaxar tamit dix huit ba dix neuf juin kon weekend bi ñu dugg à partir de vendredi à partir de samedi bokk am na un million cinq cent boo xam ne teg dañ ko fa kon defe naa ne ñoom Serigne Ndiaye numéro deux ñoom Doudou saane ah mbër yooyu ah yéen ñëpp kon jàpp leen xaalis bi daal tegal nañ leen ko ñoom général Malick waaw kon gars yi wàcc leen buñ fa jógee les arènes la ñuy dem les arènes booy naar tey moo ñuy seq waxtaan wu yaatu ak Roqe Thiam moom mu ngi France ndeysaan Roqe ñu koy nuyu di ko ziar nekkoon ku daan yëngutu ci làmb comme journaliste tey mu nekk France waaye seq naa booy naar waxtaan wu yaatu ci les arènes booy naar ñëw na ci ni maanaam comment Balla gay comment la meex de Balla Gaye a choisi Boy Naar pour battre Yékini ni yaayu Balla def ba tànn Boy Naar pour mu ma pour Balla mën a daan Yékini loolu ñëw na ci waaw waaye ñëw na tamit ci Tyson 2 diggante mag ki nga xam ne nii moom moo di Franc ah ak 18 combats yi ak maanaam daal ñëw na ci lu bare bare bare moom yëglekaay bi waaye diggante tamit Evelyne Diatta mi nga xam ah, euh, euh, mu ne mu am naa daal kàddu yi caaka wax moom daal bañ ko ko waxee ne daal mu ngi xaar loolu moom du ci tontu ndax tontu wax juñ la waxul moom ne moom du ko def day xaar ba caaka wax ak moom su ko rogee dina ko tontu Isabelle moom la ñaawlu ne daal fii ci réew mi moom ne na respect pour les sport pour pour le sport individuel maanaam ñi def sport ñi yëngutu ci wàllum sport individuel maanaam nee na daal respect bi ñu leen war a jox moom joxuñu leen ko Isabelle moo waxee noonu loolu nag defe naa ne itam warta demee noonu moo Modou Faye président fédération gambienne de lutte moom tamit nee na en Gambie gros kase bi fi gën a mag daal 15 millions la waaye tamit ñëw na di wax ci diggante Baye Mandione ak baal goo xam ne bu fekkee daa jéglu mënees na ko koo baal parce que ku ne xam ne Baye bi mu bëree xoyantaan ba coow am waxtaan mën na am ndax xuloo boo gis tamit waxtaan a koy jeexal bu jéeglu mën nañ ko jéggal waaye wax na tamit nee na fii ci Gambie ak xoyantaan moo fi roi bi parce que nag dayo Lo ñoom Balla ak ñoom Eumeu Sène am Sénégal la xoyantaan am foofu ca Gambie sëñ Modou moo wax loolu am na mbër nag Sénégal nee na sëñ Modou Faye nee na mbër mi nekk na roi des arènes actuellement mu ngi ci contrat waaye nag tuddul turu mbër ma waaye daal nee na am na mbër mu muy supporter waaw mu muy support du noonu la ko Gambien di wax en anglais sëñ Modou loolu la wax ma ci profité di nuyu waa Gambie yépp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ñëpp kat yàlla yàlla def jàmm defal ko bépp doomu aadama lépp lu waaye dugg yàlla na la si yàlla kàttanal may la si jàmm waaye di nuyu tamit bépp promoteur promoteur yi amuñu seen fay waaye ku ne xam na ne Pape Abdou Fall tamit mu ngi waajal ab jàkkaarloo bu war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow entreprenant ca stadium ibamaar Mar waaw muy loo xam ne ah tamit lu nar a neex lay doon ndax ku ne xam ne ne Siteu foo ko woo face à face woo Papa Sow ne da ngay ne ne entre lay doon payante dañuy fay ndax li tax mooy ñaari mbëri toll nañ loon te seeni supporters bëgg nañ loon Pa Abdou Fall moom tamit ñu ko ñaanal yàlla journée boobu yàlla na ci dugg ak jàmm ginn ci ak jàmm ndax moom tamit vraiment ah nit ku nga xam ne ku ñu jox cër la moom moom daf ñoo jox cër respecté ñu te te nit ki tamit bu la wegee rek xulle defe naa ne deseetu la dara paf ma koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit baaba jaw ak waa Thiam production yëpp moom du ma ko fàtte ak Amdi Moustapha ñoom fàllu Ndiaye fàllu moom tamit moom di suma soppe sëñ Fallou moom tamit ku ne xam ne ne àllar bi ji ñu jëm moom tamit ca stadium Iba Mar boobee war na fa def face à face war dox ci diggante Tapha Mbeur ak Ada Fass moom Fallou Ndiaye waaye idaal ñu ngi tamit ku ne xam ne ne nan ko xaar daa war a ñëw ci tournoi ba mois de juillet lay doonaat incha allah ñu ngi production di nuyu waa Baol production asan Ndiaye xam ne moom yàlla dafa def ñu yàgg Gibson production tamit maa ngi koy nuyu ah di ko nuyu bu baax a baax doomu ndeyu Magi bàyyi Ndiaye sax laay wax Gibson maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax boroom ah, borom Gibson production ah borom sew sewlef Gibson <laughs> xulle di la béggee di nuyu ñëpp ñaan ñëpp jàmm waaye di wax que ni rek comme ni moo leen ko waxee woon rek j'adore daal nii mu sete nii nii la mel ba te kenn ne ma démb j'adore laay lekk moo tax gis nga ni ma nii dafa baax ma ne ko wax nga dëgg j'adore a fi nañ leen koy jënd waaw parce que ki ko moom ci réew mi la dëkk te xol ba sell na muy Aziz Ndiaye yaa ngi dégg comme la ma leen waxoon nag la ñuy wax ci moom loolu lañ gis ci moom parce que moom loolu la ñu wan te nit lam la wan rek nga koy jàppe uude nam la gisee la lay ëwale noonu la demee kon xulle yàlla na Sénégal am jàmm na nu yéneente jàmm tàppe xoli na ko maam dabbaax doon waxe te doon na wax ne boo nekkee ci gaal bul ñaan sab ëmb mucc xulle mais ñaanal yàlla gaal gi mucc bu gaal gi muccee nga mucc sab ëmb mucc dabbaax loolu la doon wax ñu tàppe xol yi kon gars yi nañu tàppe xol yi yéneente jàmm ku dugg ci dara ñu jàppale ko ngir mu réussir mais bu ñu ko xeex di ko xor ñoñal di ko tànc loolu warul am warul demee noonu taxawaay bi Aziz Ndiaye amee ñu bëri war nañ ko amee ci nit bu taxawalee tee dara te du te du Vox Arena rek la ko defal bëri na ñu ko defal te loolu mooy lu rafet loolu moo gën mais yàq bi jéem a indil borom ay jafe-jafe loolu amul solo te may waxaat na ne nag waa Equivox fii lañ dëkk ay sénégalais lañ ki sañc Equivox fii la dëkk dëkk bii nekk ci Kaolack nu dëkk ba tuddati xulle ah ñooro dirib gii ngeen di dégg fa la dëkk ah san sec dama yegg ci san xam nga ko san sec loo ko ne tubaab nga xanaa DG Vox Arena tamit Diouf la sant dëkk Passy xanaa ko dokk na français nga ci réew mi lañ dëkk di ay sénégalais dund làmb xëy na dañ ciy door a dugg waaye nag door gee dugg du tax itam ñuy seetaan ñu deen def ay yenn ay jeux yoo xam ne ni yu kii la moo tax Aziz ak Jax daal mention spéciale ak 2STV ak yeneen ñi mel ni ki noonu rawatina site internet yi gars yi ba beneen yoon.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 téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex.